bës rek des ñu jeexal lii di koor gi dugg ci korité fi ci marché Ndumbe Diop bu Njaareem li nga xam ne mooy soble ak pomme de terre mi ngi ne xus si marché bi sa pàkk soble nag bu ñu sukkandikoo ci responsable bi nekk itam commerçant ci bërëb ba di Serigne Mbacké Ka njëg yi moom ñu ngi fa yomb lool. di projet li ci ëpp doole nag mooy bi jógee Fuuta ñu am ay sac de vingt cinq kilos ba trente kilos ci ay njëg yoo xamante ni njëg yu jàppandal ndax euh, ren moom dafa toll ci soble ñoo rek moo tax ren naa soble bi am ñu sukkandikoo ci Serigne Mbacke Ka li di sàkk soble bi nag mi ngi jaar junni ak ñeenti téeméer kilo ba di jaar lu yees juróom benn fukki dërëm. quantité bi ngir mën a stocké soble si nag ñii di commerçant yi ñoom ña ngay dénoncé xataayu bërëb bi ñu leen jox fii eh, espace bi dafa xat loolu jooy nañ ko ne moo ne suñ ginnaaw ñu kër Baye Gaar yi ay mbaar lañ fa